نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأت قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجله وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى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 وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد جنة بن سنتي على جولي صلى الله عليه وآله وسلم نيون باتاي تي الجامع الصحيح أبو أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمة ورضوان الباري جيخلون نان جنا بيغا خامتاني امام البخاري رحمه الله indi na ci baabu bad kitaabu badul waxyi di nga xam ne moom la doon bëmbastëram moom ak kitaabul iman ak kitaabul ilmi mu ubbee ko téeréem bu màgg bi raximahullahu rahmatan waasia wa anaara qabrahu bi anwaari saatia gisoon nañ ci tamit li nga xam ne moom moo aju woon ci kitaabul wudu ak kitaabul gusli ak kitaabul xayde ak kitaabul tayammum yooyu yëpp di dellu ci li nga xamante ne moom mooy laat bi nga xam ne moom mooy caabi nga mooy caabi julli li nga xamante ne moom mooy charte bu gën bi mag te gën a ràññeeku ci wàllu julli léegi nag mu daal di indi julli yi nga xamante ne moom moo indi bunt yi nga xam ne ñoom ñooy aju ci wàllu julli <coughs> mu indi juróom ñeenti téere yoo xamante ne yëpp day wër-wërloo ci wàllu julli moom mooy mu dindi kitaabu salaat ak kitaabu mawaqitu salaat ak kitaabul azan te ci biir kitaabu azan ci la def abwaabu sifati salaat nega noonu ci kitaabu salaat ci la defoon abwaabu sutra nega noonu gisoon nañ tamit kitaabul jumaati ak abwaabu salaatil xawfi muy kitaabu salaatil xawfi ak kitaabul aydayni ak kitaabul witri ak kitaabul istisqa bi nga xamante ne moom la ñu tëj ci suñu jotaay bi wees walillahi alhamdu wal minna bi nek juroom ñentel mu wara dugg ci juroom ñentel wu téré bo xamantene lepp day wor wor lo ci walu julli mu daal indi kitabul kusuf naka non lool mu moy tamit li nga xamantene mom moy fukkel kon ak juroom ben ci téré bi nga xamantene ñom ñoo nek ci al jami'u sahih muy fukkel ak juroom ben té muy limuk aya comme ni nga xamantene dinañ gis ni manam buntu bi manam téré bi téré la bo xamantene da fay wax ci aye manam kiwtani borom bi subhanahu wa taala ak ay mandar yoo xamantene yu mag la yuy tegtale màggaayu borom bi subhanahu wa taala comme ni nga xamantene non la ko waxe ci sura al Isra na waj'alna al-layla wan nahara ayatayn fa mahawna aayata al-layli wa ja'alna aayata an-nahaari mubsiratan li ta'lamu 'adada li tabtaghu min fadlihi ولتبتغوا من فضل لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا دانت نيو ان شاء الله تعالى امام البخاري رحمه الله تعالى ني كتاب الصلاه كت كت كت كتاب كتاب الكسوف موي تير بو خامتاني دا فاي ليرال تي كوس مانام مانام موي كتاب الكسوف موم موي تير مور مانام بيغا خامتاني موم موي دانيو جاب جاب جاب جانت بي ولا وير بي مانام موم موي ليمي تك موي مور بيغا خامتاني موم لا ني مور جانت بي ولا بوك ني مور وير بي لول موم موي الكسوف mune ne bismillahi rrahmani rrahim loolu li nga xamante ne moom mooy li ëpp ci ci maanaam ci nusax yi am na ñoo xam ne wax kitaabul kusuuf am na ci nusax yoo xamante ne dañuy wax ne abwaabul kusuuf maanaam mun te mun daal di am tamit bu ñu xoolee bismillahi rrahmani rrahim bi dafa sax ci riwaaya karima naka noonu ci maanaam karima bint bint ahmad al marwaziya Euh, rahmatullahi alayha maanaam noonu la nekkee ci njaal benn gi muy kitaabul kusuuf ak euh, kitaabul kusuuf nag moom mooy kon bismillahi rahmaani rahim bismillahi ci tur buur yàlla arrahmaan mooy aju fees dellu ji yërmande arrahim mooy ki nga xamante ne moom mooy ki yaatu yërmande mu ne kitaabul kusuuf téere bi nga xam ne moom mooy téere jàpp gi ñu jàpp jant bi wala weer wi maanaam muy téere bi nga xamante ne moom mooy leeral ci maanaam muur gi nga ko suuf mi ngi jóge ci kasafa bi nga xamante ne li muy tekki moom mooy muur gi nga xamante ne moom la ñuy muur euh, ak soppi gi nga xamante ne moom la ñuy soppi jant bi wala weer wi jëmi ko ci ak ñuul maanaam jëmi ko ci ak lëndëm maanaam lool moom moo tax nga gis ne maanaam borom bi subhaanahu wa taala comme ni nga xamante ne euh, noonu la ko waxee wa xasafal qamar wa jumia ash-shamsu wal qamar maanaam loolu daan ci gisaat insha allahu taala borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi manam kon li nga xamne mom moy kashafa nak bu fekkonte ne siin gi manam siin gu toy la manam mom moy kashafa manam bi siinul manam bu ñu ci asinul mojama manam bu boba lool limi tek mom moy wuññi manam moy dévoilé dindi kiiraay waaye am maa kashafa limi tek mom moy mur manam bi nga xamantene mom moy mooy muhmara manam bi nga xamantene moy mooy gu wow loolu mom moy li nga xamantene mom la ci borom xam-xamu lu xey wax rahmatullahi alayhim li nga xamante ne nag moom mooy kon cosaan bi amma li nga xamante ne nag moom bu ñuy wax naan ci ci kusuufu shamsi ak wala boo kusuuful xamari yooyu yëpp li nga xamante ne moom la fuqaha di faral di wax rahmatullahi alayhim mooy ñoom dañuy wax alkusuufu maanaam moom bu fekkente ne dañoo jàpp jant bi ñoom moom la ñuy wax alkusuufu moo ñuy wax kusuufu shamsi amma li nga xamante ne moom mooy jàpp weeru ñoom xusuufu la ñuy wax maanaam moom mooy ni dañoo jàpp jant bi dañoo jàpp weeru maanaam dañ koo muur waaye li nga xamante ne moom bu ñu xoolee li nga xam ne noonu la alquran di jëfandikoo ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dinañu gis ne maanaam ñoom baat bi nga xam ne moom mooy kusuuful qamari dañ koy wax comme ni nga xamante ne noonu noonu la ñu waxee xusuufu shamsi maanaam mu nekk ñaari baat yoo xamante ne ñoom ñëpp maanaam mutaraadifaani lañ maanaam moom mooy ay synonyme lañu loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy bu ñu gisee ci ni nga xam ne noonu la alquran di jëfandikoo ak li nga xam ne mooy sunna yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma li nga xamante ne moom moo aju ci bu fuqaha yi comme niñ la ko waxee léegi rahmatullah alayhim ñoom nag dañ leen di le di wax alkusuufu di ko jëmee ci jant bi naka noonu ñuy wax al alxusuufu di ko jëmale ci weer wi loolu nag istilaax la maanaam moom mooy li nga xamante ne moom mu la ñuy wax terminologie la boo xamante ne ci seen biir ñoom borom xam-xam fiq yi rahmatullah alayhim dañ koy faral di wax seen biir amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuq ñoom ñooy muhaddisuuna yi rahmatullahi alayhim mooy boroom xam-xamu xadis yi ñoom du ñu def li nga xam ne moom mooy xejj ak seen ci diggante ñaari kàddu yooyu ñoom dañ leen a jël rek def leen daal mu naa di nekk benn ci ñoom rahmatullahi ala aljamii amma li nga xamante ne kon moom mooy téere bii muy kitaabul kusuuf imam al buxaari rahimahullahu taala daf koo indi di ci leeral ay bunt ay mbir yoo xamante ne dafay leeral lépp loo xamante ne dafay wër-wërloo ci ci julli yi nga xamante ne wala boog leneen maanaam moo tax mu indi ko fii ci maanaam mu daal di koy lëkkale ak bunt yi nga xam ne ñoom ñooy wax ci wàllu julli maanaam moom mooy ne am ay julli yoo xamante ne dañ ko yoonal ci ci ci euh, ci li nga xamante ne moom mooy euh, al ku suuf maanaam moom mooy bu ñu jàppee jant bi wala boog ñu jàpp weer wi li nga xamante ne nag moom mooy imam al yi bu ñu xoolee bunt yi nga xamante ne moom la ci ubbi yëpp dañ ci gis ne maanaam day wër loo ci ñaan gi maanaam julli yi nga xamante ne moom la ñuy def bu fekkente ne jàpp nañ jant bi wala boog jàpp nañ weer wi wala boog muy leeral bërëb yi nga xamante ne moom lañ ko defee naka noonu tamit muy leeral tamit li nga xam ne moom mooy ñaan ak sikar yi nga xamante ne moom lañ fay def it muy leeral ndax danañu wax maanaam lan lañuy maanaam terminologie yi xam ne moom la ñu war a mën a jëfandikoo ak yi nga xamante ne dañuy tere nit ñi jàpp ko bu fekkente ne jant bi ak weer wi dañoo leen a jàpp loolu moom mooy yi nga xamante ne moom la leeral ci buntu ci téere bii imam kon muy nekk kitaabul mu nekk kon kitabul kusuf manam kitab nak waxon nañ li nga xamantene mom lay tekki waxon nañ tamit wax nañ legi tamit al kusuf wax nañ kon li nga xamne mom lay tekki ci luga naka nonu mom wax nañ ko tamit li nga xamne mom lay tekki ci sharia mu am kon julli go xamantene dañ ko ci yonal muy julli gi nga xamne mom moy salatul kusuf dañ koy wax tamit salaatul xusuuf su fekkente ne weer wi la ñu jàpp amma su dee jant jant bi la ñu jàpp kitaabul kusuuf lañ koy wax kon su dee weer wi la ñu jàpp ñu ne non salaatul kusuuf la ñuy wax bu dee weer wi la ñu jàpp nañ naan salaatul xusuuf imam al buxaari rahimahullahu taala di ci leeral kon mboolem mbir yi nga xam ne ñooy loo ci yooyu mu am nag loo xamante ne dañ koy mbëmbëstale maanaam moom mooy bu njëkk bi moom mooy ne julli googu nga xamante ne moom la ñuy def bu fekkente ne dañoo jàpp jant bi wala boog ñu jàpp weer wi loolu bu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am na ci loo xam ne dëppoo nañ ci waaye am na ci loo xamante ne wuute nañ ci li nga xamante ne moom la ñu dëppoo moom mooy ne bu dee julli nga xam ne moom la ñuy julli bu ñu jàppee jant bi loolu mbooleem borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci ne dañ koo yoonal te loolu moom mooy mazhabu maanaam moom mooy mazhabu jumhurul jamaahirul ulama wala boog maanaam ijmaa la sax lañ mën a wax ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne bu ñu jàppee jant bi am na julli boo xamante ne buñ ci yoonal la loolu te waaye nag wuute nañ su fekkente ne julli la maanaam bu fekkente ne dañoo jàpp weer wi amaan na loolu moom moo tax imam al buxaari rahimahullahu taala tuddee téere bi kitaabul kusuufi te waxu ci wal xusuufi maanaam te ngir ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute ci bu fekkente ne dañoo jàpp weer wi li nga xamante ne moom la ñu dëppoo ci bu ñu jàppee jant bi julli googu nga xamante ne moom lañ koy julli dañ koo jox gëdd gi nga xam ne moom la jox kitaab maanaam salaatul iidayni naka noonu ak salaatul istisqa te moom mooy sunnatun mu akkada la maanaam loolu borom xam-xam yépp dëppoo nañ ci lu dul ne am na mbooloo ci fuqahaa u xanafiya yi rahmatullah alayhim yoo xamante ne ñoom dañoo jàpp ne julli googu waajiba la maanaam dafa nekk loo xamante ne dafa war ngir sax gi nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax ci di ko julli loolu moom mooy li nga xamante ne moom moom mooy li nga xamante ne moom lañ dëppoo amma li nga xamante ne moom mooy beneen mbir mi moom mooy julli bu fekkente ne julli ji euh, julli maanaam salaatul xusuuf la moom mooy bu fekkente ne dañoo jàpp weer loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim fofu nak dañ ci wuute ñi nga xamante ñom ñoy ñooy fuqaha wa xanafiya yi ak maliki rahmatullah alayhim ñom dañoo jàpp ne nit ñi dal dañ mën naa julli ci kërëm wal wal manam loolu moy li nga xamante mom moy li li ñu yonal ngir ne yonent bi bi sallallahu alayhi wa sallam julli wuko waye loolu borom xam-xamu shafii yi ak xanaa rahmatullah alayhim wuute nañ ci ak ñom maanaam njir ñoom danoo jàpp ne dañ koy jullil kéem li nga xamante ne noonu la ñuy jullilee julli maanaam bu ñu jàppee jant bi te loolu ngir ne Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhu maa def koo def ba pare daan ne sallaytu lakum kama raaytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yusalli dama leen a jullil kéem nga xamante ne noonu laa gisee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jullee maanaam muy naka noonu sayyidat Aisha radiyallahu taala anha tamit wax ne julli ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli na fekk dañoo jàpp weer wi waaye li nga xam ne moom la fuqaha u maliki rawatina ñoom rahmatullah alayhim di tontu ci mbir moom mooy ne dañoo jàpp ne li nga xamante ne mooy ne jàpp gi ñu jàpp weer wi bëri lu mu xewoon ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam te toxaluñ ko kéem li nga xamante ne noonu la ñu toxalee julli gi nga xam ne moom la julli woon bi nga xamante ne moom la ñu jàppoon jant bi. te lool maanaam ngir ne maanaam lool tamit day dëgëral ne du julli boo xamante ne dañoo yoonal ak dajaloo maanaam ñëw ci jàkk ji di ko julli waaye yeneen mbir yi nga xamante ne wuute nañ ci yooyu daan ci ñëw insha allahu taala ci biir masala yi beneen mbir bi nga xamante ne tamit boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci moom mooy ndax bu fekkente ne dañoo jàpp jant bi kese wala ñu jàpp weer bi kese moom la ñuy jullil wala walla boog def na jullil yeneen waxtu yoo xamante ne bokkul maanaam maanaam yeneen mbir yi nga xamante ne euh, dañ koo maanaam ay xew-xew yu rëy la comme muy aayaat yi ndax gisoon nañ ci baabu maa qiila fi zalazili wal aayaat maanaam ci te kitaabul istisqa muy bunt yi nga xamante ne moom la ñu wax ci azzalaay mooy yëngatu yi nga xamante ne ñoom ñooy yëngatu suuf si yëngatu ak yi nga xam ne ñoom ñooy aayaat yi maanaam te borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne wa ma nursilu bil ayaat illa taxwiifa wàcce wu ñu ay aay yoon du ñu yabal ay aaya maanaam ay mandarga yoo xamante ne dañuy tëkkale maanaam bu ñu xoolee liñ doon wax naan bunt bi maanaam téere bi moom muy fukkeel ak benn moom mooy li mu aaya maanaam aaya yooyu borom bi subhaanahu wa taala di wax naan wa maa nursilu bil ayaati illa taxwiifa te moom mooy mboolem yi nga xamante ne mooy masalan jàpp gi ñuy jàpp jant bi ak jàpp gi nga xamante ne moom la ñuy jàpp weer wala boog mu nekk ay yëngatu yu suuf si di yëngatu li nga xamante ne moom mooy taw boo xamante ne day dem rek tëw taxaw wala boog mu nekk loo xamante ne ak ak ak ak ak ak ak ak ak bu tar la wala boog ak feebar goo xamante ne maanaam moom mooy ak mbas la goo xamante ne dafay tasaaroo ci dëkk bi ak yu mel noonu maanaam muy feebar yoo xamante ne euh, mooy euh, maanaam épidémie la wala yu mel noonu loolu yëpp moom mooy yi nga xamante ne ndax dañ ciy julli ay julli yoo xamante ne dañ cee yoonal julli waaw wala déet ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u xanafiye rahmatullahi alayhim ñoom yooyu dañ ni waaw ahanka yooyu yoonal lañ ci julli maanaam comme li nga xamante ne noonu la ñu yoonalee ci bu ñu jàppee jant bi ñu julli naka noonu bu ñu jàppee weer bi ñu julli noonu tamit la imam bi mën a dajalee bu ñu jàppee ñi nga xam maanaam bu fekkente ne xew-xew yi yépp dafa am bu boobaa ñu daal di julli ngir borom bi subhaanahu wa taala yékkati mbir yi maanaam ngir ni yépp li nga xam ne moom mooy sabab bi ñu bokk maanaam moom mooy qiyaas bi nga xam ne moom la ñuy qiyaas ci mbir yooyu moom mooy comme ni ko aaya bi waxe wa maa nursilu bil ayati illa taxwiifa wàcce wuñu aaya yi maanaam mandarga yooyu yépp lu dul ngir xanaa tiitalaate maanaam ngir ragal ragal loo nit ñi maanaam ñu bàyyi waat xel borom bi subhaanahu wa taala naka noonu tamit lii tamit maanaam noonu rek lay demee comme ni nga xam ne noonu la ñu yoonalee tamit istisqa maanaam jullit baaw naan ngir ne ju dajaloo bi nga xam ne moom la ñuy dajaloo maanaam ngir ñaan bu dee ci xanafi yi rahmatullah dañuy wax ne nit na julli maanaam ci wala wàllam maanaam kenn ku ci ne maanaam loolu tamit boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci te li nga xamante ne moom mooy ah, ngir ne ñoom dañoo wax ne ñoom fuqaha u xana xanafi ah, rahmatullah alayhim ñoom ci bu dee ci istisqa dañuy wax ne kenn ku ci nekk maanaam mën naa julli rek Euh, ci wàllam noonu tamit lañ mën a dajaloo itam maanaam ngir ñaan ba pare ku nekk julli bu fekkente ne dañoo jàpp weer wi naka noonu bu fekkente ne tamit dañoo jàpp euh, bu fekkente ne tamit dañoo euh, dañoo dañoo maanaam yeneen xew-xew yépp dañoo am am amma ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u maliki yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne bu ñu jàppee ñaari yi rek maanaam jant bi wala weer wi maanaam bu boobaa mën nañoo daal di dajaloo daal di julli waaye nag bu fekkente ne yeneen naka noonu tamit yeneen maanaam mën nañuy dajaloo tamit kenn ku ci nekk nga julli sa julli su fekkente ne weer wi la amma li nga xamante ne comme ni maliki yi wax rahmatullah alayhim ne ci ñaar yooyu lañ ko yoonal amma ñi nga xamantene ñom ñoy ñooy rahmatullah man rahmatullah wala bok ci yeneen yi ci des maanaam maaliki yeeg xanaabila rahmatullah alayhim ñom dañoo jàpp ne manam yoy yep bu xewé maa amul lu julli go xamantene buñ ci yonal la waye kenn ku ci nek mën nga tok nga julli sa kër manam ñom fofu lañu wuté manam bu fekkente ne dañoo jàpp jant bi wala ñu jàpp weer bu boba loolu mënef dañ koy jullil bu fekkante ne julli jant bi la bu boba dañuy dajalo julli comme ni nga xamantene mom moy xana maliki rahmatullah alayhi fiñu wuté xana bi lay mom moy ne xana bi lay rahmatullah ñom dañoo jàpp ne julli gi ñi jullil julli jant bi moy jëmmi julli gi nga xamne mom lañu julli julli jullil amma maliki rahmatullah dañoo jàpp ne dañ dajalo waye julli manam buñu dajalo wé tamit loolu du sunna manam luñu sopp kessela man double manam moy julli gi ñuy julli julli gi weer kooku man duub la te ñaari rakkaa rek lay doon yoo xamante ne wuute na ak ñaari rakkaa yi ñu julli bu dee salaatul kusuufi la maanaam mooy bu ñu jàppee weer wi loolu mooy teqantal bi am amma li nga xamante ne nag moom mooy bu yeneen xew-xew yii ñu wax yëpp mooy aayaat yi yëpp bu ñu amee mooy lu demee nekk suuf si yëngu na wala boog taw bi mu ngi foor tëw taxaw maanaam wala lu demee nekk volcan am na wala boog yu demee nekk ngelaw lu foor a foor di yàq wala boog yoo xamante ne maanaam ak yu mel noonu daal maanaam mbënd bi am na wala boog mu euh, am ak mbas boo xamante ne dafa am ci dëkk bi ak yumel noonu yëpp su amee maanaam jàngoro gu tasaaro ak yooyu yëpp maanaam kenn ku ci nekk mën ngaa toog sa kër nga julli maanaam mu am julli goo xam ne dañ koy yoonal am maa ñi nga xam ne ñoom ñooy Shafi'i rahmatullah ñoom dañ ni julli amul ci yooyu yëpp lu dul jàpp bu ñu jàppee jant bi ak bu ñu jàppee weer wi loolu kon moom mooy yi nga xamante ne moom la boroom xam-xam yu wuute rahmatullah alayhim maanaam kon euh, euh, bi nga xamante ne Euh, euh, euh, waaye xanaa bi lay rahmatullah alayhim dañu ne ñun nag dañ ciy seeti benn moom mooy su fekkente ne jant bi maanaam bu fekkente ne suuf si dafa yëngatu bu boobaa moom ñun dañuy ñëw julli si maanaam boobu rek la ñu ber maanaam loolu kon moom mooy yi nga xamante ne moom la boroom xam-xam yu wuute foofu rahmatullah alayhim léegi li nga xamante ne kon bu boobaa dañuy gis ne wax yi daanaka ñeenti wax lay doon daanaka yu xaw a wuute maanaam xanafi yi rahmatullah dañ koo yoonal ci luñ joyal ni nga xamante ne ñoom ñooy maaliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañ koo yoonal waaye eh, ci ci seen kër yi ñi nga xamante ne ñoom ne xanaa bi lay rahmatullah dañ ko yoonal ci seen kër yi waaye bu dee dañoo war a ñëw dajaloo bu boobaa bu jëj suuf si yëngatoo la am maa ñi nga xam ne ñoom ñooy saafee ñoom jàpp nañ ne loolu mënta am de façon maanaam bu fekkente ne dañoo jàpp jant bi ak weer bi daal lañ koy yoonal bu dul yooyu rek kenn du ko yoonal lool tamit moom mooy wuute kon yi boroom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim ci boobu mbir beneen mbir bi nga xamante ne moom moo am moom mooy ma bi nga xam ne moom moo nekk kon ci yoonal gi ñu yoonal julli yooyu maanaam bu ñu jàppee jant bi wala bu ñu jàppee weer te lool moom mooy li nga xamante ne moom la ñu tudd léegi moom mooy ne borom bi subhaanahu wa taala dafa def ne yowmal qiyaamati dafa am lu cay xew moom mooy comme ni nga xam ne moom lañ ko jàngee léegi mun a wax a safal qamar wa jumia shamsu wal qamar jant bi ak weer wi yëpp dañ leen di dajale fekk maanaam dañuy jàpp jant maanaam weer wi maanaam li muy tekk mooy dañuy muur weer wi lëndëmaayu weer wi loolu nag mu nekk kéemtaan boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala dafa def ne ci kaw maanaam ci jamono ji ñu nekk aayatal layli ak aayatal nahaari maanaam ka mu ne aayatul layli moom mooy kiim maanaam mandarga yu bëccëg maanaam comme ni ko alquran waxe ah, wajaal na layla wan nahaara aayatayni maanaam dañoo def guddi gi ak bëccëg gi yépp mu nekk ñaari maanaam nekk ñaari mandarga yoo xamante ne guddi gi ngir mën a nelaw la bëccëg gi ngir mën a Euh, jóg la maanaam maanaam bëccëg gi ngir mën a euh, jóg dox ay soxla la loolu sax moom mooy xejma bi nga xamante ne moom moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim bu dee fuqaha xanafi yi ñoom dañoo jàpp ne julli gi nga xamante ne moom la ñuy julli euh, ci bu dee dañoo jàpp weer wi loolu xasana la ñi nga xam ne ñooy maaliki yi dañoo jàpp manduuba la maanaam mooy ne julli bu dee xanafi yi dañ koo rafetlu bu dee maaliki yi dañ koo dañ koo sopp am amma ñi nga xam ne ñoom ñooy xanaf eh, shafi'i ak xanaabila yi rahmatullah ñoom dañ koo def sunnatul muakkada li tax nag boroom xam-xam fukk xanafi yi ak maaliki yi mu wuutale degré bi moom mooy ni guddi borom bi subhaanahu wa taala daf koo def ngir nit ñi noppalu te it bu fekkente ne dañoo jàpp jant bi jant bi maanaam bëccëg gi nit ñi dinañu mën a préparer wu maanaam jóg dem waaye bu dee guddi gi la maanaam ngir ñu yeewu ñu war leen a jógloo yeewuloo leen dem leen dem leen ngeen daje foofu loolu ñu def ko sunnatul mu akkada day daal di nekk loo xamante ne ak tartar da ci daal di am maanaam naka noonu tamit li nga xamante ne eh, moom la borom bi subhaanahu wa taala wax ne fa maxaw naa aayatal layli wa jaal naa aayatal nahaari mubsira maanaam li nga xam ne mooy màndargay bëccëg gi moom dañ koo eh, eh, maanaam bu guddi gi bokk dañ ko dañ ko dañ koo far maanaam dañ koo far bu loolu moom moo tax guddi gi di lëndëm donte weer wi mi ngi fi waaye bu dee bu bëccëg gi nag moom màndargaam te mooy jant bi moom mubu siratan dafay leeralaate maanaam loolu yépp nag borom bi subhaanahu wa taala ne li tabtahu fadlan min rabbikum maanaam bu ko defee ngeen mën a sàkk ay xeeti ngëneel yoo xam te ne dafa tukkee ci seen borom subhaanahu wa taala wali taala mu adada sinina wal xisaab te it bu ko defee ngeen denc budul dara te du dara maanaam waaw boobu moom loolu lay nekk maanaam te it bu dul dara te du dara ngeen mën cee jàngee li nga xamante ne moo ngeen mën cee xamee limu yi nga xamante ne moom mooy euh, at yi ak tamit ngeen mën cee euh, xool calcul yi naka lay demee maanaam euh, kañ la jant bi maanaam kañ la bis sàngam di jot. kañ la jant bi di jóg kañ la weer wi di jóg di di feeñ ak yu mel noonu yépp yéen mën ko cee xame mu ne wa kulla shay'in fassalnaahu tafsiila maanaam mbir mu nekk nag ñun borom bi subhaanahu wa taala teqantal nañ ko ak teqantal loolu kon muy nekk loo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf koo def mu nekk ngëneel bu rëy mu nekk tamit kéemtaan bu màgg waaye nag bu yowmal xiyaamee maanaam dañuy jël jant bi ak weer wi yépp ñu dajale leen lëndëm maanaam leer bi nga xamante ne moom la ñu amee woon ñu far ko maanaam mu dese rek ak lëndëm mu dese tamit ak tàngoor bi nga xamante ne moom la jant bi amee yooyu yëpp rek loolu nag mu nekk kon loo xamante ne nit ñi bu ñu jullee maanaam li nga xam ne moom mooy salaatul kusuuf wala salaatul xusuuf yooyu yëpp di fàttali nit ñi yowmal xiyaamati boobu maanaam bis la doon boo xamante ne dinañ gis ni lenn ci lii maanaam lii lii li ñuy wax ne yowmal xiyaamati loolooy am moom mooy lëndëm maanaam moom mooy muur googu ñuy muur jant bi wala weer wi maanaam ñu daal di koy gis jàkkaarloo ak moom fii nii daal di gis ne ah kon de tey lii am na loolu benn la ñaareel bi ci des moom mooy ne waxtu woowu dafa am ay musiba yoo xamante ne mën nay am ci nit ñi maanaam tey masalan képp koo xamante ne maanaam léeg-léeg da ngay gis ne eh, bu ñu jàppee jant bi masalan nit koo xamante ne dafay toog di xool jant bi ak ay bëti boppam amaan na loolu mën na koo in silmaxaloo maanaam ak yeneeni mbir yoo xamante ne daf ci daf ci am ngir ne maanaam nii ni nga xam ne rayon yi ni muy ni muy mën a ñëwee maanaam dugg ci bëtam moo tax da ngay gis même ñi nga xam ne ñoo koy jéem a kiiw dañuy takk am na linat yoo xam ne yooyu la ñuy war a takk ngir bañ mu silma xolloo leen wala yu mel noonu mu yàq seen ay bët yooyu yëpp nag mu nekk ne comme lii yëpp man na cee am léegi yow demal nga julli nga toroxlu ci sa borom subhaanahu wa taala nga wéetu ak mu fàttali la bis bi nga xamante ne moom mooy bis bi nga xamante ne lëndëm gi day daal di muur suuf si nag ngir ne jant bi ak weeru yëpp dañ leen di lëndëmal maanaam nga fàttaliku loolu maanaam mu nekk yowmal xiyaamati maanaam te loolu moom mooy li nga xamante ne kon moom la ñu yoonal amma li nga xamante ne tamit moom mooy julli googu waxtu yi nga xamante ne moom lañ koy defee boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne dañ koy def ci waxtu yi nga xamante ne kenn tere wu ci naafila loolu ñëpp dëppoo nañ ci amma yi nga xamante ne moom la ñuy euh, waxtu yi nga xam ne moom la ñuy teree naafila mboo manam shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañ ne ah ah manam manam ñom dañ ne mën nañ ko def hatta ci waxtu yi nga xamne dañuy téré nafila amna lenn ci hanabila yi ak maliki yi ñu ànd ak ñom ci wax jojo rahmatullah alayhim waye sudut lolu mos jumhurul ulama rahimahumullah ci fuqaha u shaf ci fuqaha malik malik xanafiya ak maliki ak hanabila yi rahmatullah alayhim ñom dañu wax ne lolu batay tey mën nañ ko maanaam dinañ ko maanaam kenn du ko julli ci waxtu yoo xamante ne dañ ciy tere ku naafila te loolu noonu li nga xamante ne moo tax Shafi'i yi nangu ko moom mooy dañoo jàpp ne li mu am sabab moo tax maanaam te du julli ñoom bu amee sabab maanaam day da dañ koy daal di mën a julli te du am problème loolu moom mooy kon li borom xam-xam yi wuute ci mbir yooyu rahmatullahi alayhim amma ni nga xamante ne noonu lañ koy jullee ak yeneen yi ci aju yëpp danañ ko gis ci kanam inchaa allahu taala imam al buxaari rahimahullahu taala daanne baabu salaati fi kusuufi shamsi baabu bunt as-salaatu julli fii kusuufi shamsi boo fekk maanaam ci bu ñu jàppee jant bi maanaam fii li nga xam ne moom lañuy ciy moom mooy ni buntu bii daf ciy leeral yoonal bi nga xamante ne moom la ñu yoonal ci euh, julli bi nga xamante ne moom lañuy julli buñ jàppee jant bi. loolu la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim maanaam ñoom ñëpp dëppoo nañ ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi bunt bi ngir leeral ci ne loolu lu ñu yoonal la te am na ay xadis yoo tukkee ci yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yoo xamante ne dañuy leeral ne bu maanaam bu ñu jàppee jant bi dañuy daal di julli naka nonu tamit buñu manam dina ñëw ci yenen att yi nga xamne way fi fii li mu njëkk ñëw mom moy buñu jappé jant bi mun qala hadathana amr ibn aun te mom moy abu usman al-wasiti as-sulami mom gisoon nañ ko ci buñu wax ci walu qibla yi maanaam rahimahullahu taala mom mun qala hadathana khalid te mom moy abul haysam khalid ibn abdullah ibn abdurrahman ابن يزيد الواسطي الطحان رحمه الله تعالى مام دون نكو گيس گي مون ген ادنا 179 امي گيناو گادا يونس صلى الله عليه وسلم حديث ام نك تي كتبو ستة عن يونس تي مام ابن عبيد بن دينار العبدي الخزاز رحمه الله تعالى داكن تام نيكون ابو عبد الله ديوا بصر رحمه الله تعالى واي كوفي الاصل لا مام مون عن الحسن تي مام موي الحسن ابن ابي الحسن البصري رحمه الله تعالى دي امام بو عن ابي بكر ت موم سيدنا نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه الثقفي موي ابو بكر غرسي وي تي داكانتالم ابو بكر و بصره رضي الله تعالى عنه انه قال نينا كنا نيكون نان رسول الله فدوال يالله صلى الله عليه وسلم فانكسفت ñu daal di mu daal di muuru ash-shamsu jant bi fa qaama maanaam bu boobaa li nga xamante ne mooy muuraay gi nga xam ne li koy indi comme ni nga xamante ne noonu la ko euh, borom xam-xamu euh, biddiw yi di maanaam li nga xamante ne moom moo koy indi moom mooy ne mooy féete ci ginnaaw bu ko defee euh, maanaam jant bi ak weer wi ak ak suuf si ak jant bi daal di teg nekk ci benn ligne maanaam loolu moom tax maanaam bu fekkente ne takkandeer bi nga xamante ne moom mooy takkandeeru Euh, suuf si maanaam suuf si moom mooy dal ci kaw jant bi loolu moom moo ko indi bu dee bu weer wi tamit noonu la rek maanaam wuute yi nga xam maanaam ak euh, euh, loolu nag nga xamante ne moom mooy amee noonu moom moo tax bu dee jant bi dañ koo jàpp loolu bëccëg lay xewe bu dee guddi maanaam weer guddi lañ koy jàppe maanaam kenn bu jàpp jant bi maanaam jant bi mënee futa wax ne jàpp nañ ko fekk guddi lu moo xewoon loolu du am maanaam naka noonu tamit buñ naan jant bi weer wi jàpp nañ ko loolu bëccëg la lay doon Euh, maanaam guddi lay doon maanaam deefu ko mën a jàpp ci bëccëg loolu tamit moom moo tax lii sabab loolu daañ ci ñëw insha allah taala li nga xamante ne moom mooy sabab maanaam moom mooy tax ne ñu ne ah jan léegi julli gi moom arrêté ne nañ taxawal wala boobu duñ ko refete loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala mu ne kon fan kasafat maanaam mu ñu daal di muur ashamsu jant bi fa qaama mu daal di taxaw moom annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ya jurru di këcc li nga xam ne mooy ridaa ahoo yërëm bi maanaam moom mooy <coughs> mbubb bi <coughs> di direeku mu koy xëcc xattaa mbette daxala mu daal dugg almasjida jumaa ji loolu nag li ko indi moom mooy ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp comme ni niñ ko gise woon maa qiila baabu maa qiila fi zalazili wal ayaati maanaam ni moom mboole mbir yi maanaam ak tamit baabu iza habati riixu loolu tamit gisoon nañ ko maanaam yooyu yëpp te ñu gisoon ko ci salaatul istis ci euh, kitaabul istisqa maanaam mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mbir yooyu du nekk loo xamante ne day ñëw nii jàll amul lenn lu mu koy jàngal faaw daf ciy tiit maanaam mu ciy fàttaliku boromam subhaanahu wa taala waaye mu ciy gis loo xamante ne day tegtale màggaayu borom bi subhaanahu wa taala waaye tamit daf ci gisee ni ëllëg yowmal xiyaamati lii mu ngi xew moom mi ko xam ak nam ko xamee moo tax moom effet bi mu koy def moo tax mu mu mu mën di xëcc di direeku nga xam ne moom mooy yërëm bi muy muy muy boobu mu daw maanaam dem ak moom loolu tamit bokk na ci liñ ciy jànge mooy ne yére bu fekkente ne dafa wàcce te fekk nit ki jubluwu ci puukarewu loolu bu boobaa nekkut loo xam ne rawatina bu fekkente ne comme ni ko ñenn ci borom xam-xam yi waxee rahmatullah alayhim maanaam nekkut loo xamante ne nit ki moo ko tey maanaam bu boobaa du aay maanaam nit ki nit du ci am bàkkaar fi mu ci amee bàkkaar nag moom mooy yére bi mu koy ngandal muy rëy maanaam mu ciy jublu puukarewu maanaam euh, mooy xuyalaa googu nga xamante ne moom la xadis bi di wax maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom moom dafa moom moom moo mooy li muy lii waral ci nit ki sax rëbbug borom bi subhaanahu wa taala ci yàlla musal mu daal di kon xët li nga xamante ne moom mooy yére bi xattaa mbéte daxala mu daal di dugg almasjida jàkka jàkka ji nee na fa daxal naa ñu daal di dugg ñun tamit fa sallaa mu daal di julli bi naa ci ñun yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ñun rakkaa tey ni ñaari rakkaa xattaa mbéte in jalat mu daal di yëkkati ko ak shams jant bi lii tamit dafay dëgëral li nga xam ne mooy mazhabu xanafi yi rahmatullah alayhim ngir ne xanafi fii ñoom dañoo jàpp ni julli euh, maanaam bu ñu jàppee jant bi julli gi ñaari rakkaa kese la maanaam comme yeneen ñaari rakkaa yi ñu mës a xam rek maanaam julli gi noonu dong lay demee maanaam loolu tamit bu dinañ ci ñëw insha allahu taala ci ne julli googu de wuute na ak julli gi nga xamante ne moom la maanaam moom mooy ñaari rakkaa nii rek loolu daan ci dinañ ñëw ci ne wuute nañu waaye fuqaha wa xanafi yi rahmatullahi alayhim dañuy sukkandikoo ci xadis bi ak xadis yi mel ni moom maanaam ngir tegte la julli gi yëpp ñaari rakkaa waaye daañ gis ne li mu ci namm mooy ne ñaari rakkaa yoo xamante ne dafa am ñaari rukoo ak ñaari maanaam dafa am ñeenti rukoo ak ñaari sujjóot maanaam yoo xam ne daan ci ñëw insha allahu taala mu daal di mu ne fa qaala mu daal di wax moom yenente bi sallallahu alayhi wa inna shamsa naka jant bi wal qamar ak weer laa yan kasi faane duñu muuru li mawti ahadin ngir deewu kenn maanam lii tamit maanaam ngi gis ni jant bi ak weer yi la wax mu ne laa yan kasi faani loolu li muy tegtale mooy ni ñuy waxee kusuuful shamsi noonu la ñu mën a waxee kusuuful xamari loolu moom moo tax mu daal di leen di boole ci benn fi'l maanaam benn verbe boo xamante ne moo leen concerné loolu tamit day tegtale li nga xamante ne moom moo aju ci wàll boobu mu ne nag waaye li tax mu wax ko lii mooy ne dafa tombe woon ak Seydina Ibrahim alayhi salaam génn àdduna muy doomu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu naan xëy na liñ jàpp jant bi de moom mooy xëy na maanaam maanaam li tax mooy génn àdduna gi nga xamante ne moom la Seydina Ibrahima génn àdduna maanaam moom jant la moom ni mu génnee àdduna moo tax ñu ja jant bi tamit muuru mu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen wax nag ne déedéet mbir mi demeewut noonu loolu xewut maanaam loolu tamit day raddu maanaam lépp loo xamante ne moom mooy pas-pasu ñi nga xam ne ay caaxaankat lañ jàpp na ne lii xew ci maanaam jaww ji maanaam dafay ak maanaam ci rawatina ci biddiw yi dafay am ay effets yoo xamante ne maanaam ngir ne xew na rek loolu moom moo tax maanaam tam maanaam dafa am ku ku war a juddu wala ku war a génn àdduna loolu moom moo tax nangam bii xew nii loolu moom ay caaxaan la yoo xamante ne teguut ci dara dégg nga mun a fa iza ra'aytumuha fa iza ra'aytumuhuma loolu soo leen ko gisee fa sallu na ngeen julli waddu wuute na ngeen ñaan xatta mbéte yan kashafa xattaa mbéte yuk safu ñu daal di wuññi maa li nga xamante ne bikum moom moo nekk ci yéen maanaam moo moo xew ak yéen maanaam te moom mooy lan jàpp gi ñu jàpp jant bi ak jàpp gi ñu jàpp weer lii tamit day dëgëral ne julli gi ñuy dañuy jullil maanaam salaatul ku ku suuf maanaam ku suuf maanaam liñ koy defee noonu la ñuy defee salaatul xusuuf maanaam ngir ne dafa ne ñaar yii yëpp bu xewee manam fo len ko gisee na ngeen julli te na ngeen ñaan ba te mu dañ te lool tamit day tektale ni ñoom ñaar seenu julli génn la comme ni nga xamne non noonu la nekkee mazhabu shafiiya yi ak hanabila yi rahmatullahi ala al jamii maanaam kon loolu da koy leral da ci ne non lool moy li dëgër inshallah taala hadith bi imam al bukhari indi nako hadith numéro 1048 ak 1063 ak 5785 imam an-Nasaa'i indi na ko xadis numéro 1459 1463 1491 ak 1502 imam Ahmad indi na ko xadis numéro 20 1390 kon dañuy gis ne ci waa asxaabu kutubu sitta imam al-Buxaari imam an-Nasaa'i rek ñoom ñoo ko solo amma imam Muslim ak imam Abu Daawuda ak imam euh, euh, Tirmizi ak imam Ibnu Maaja ñoom ñëpp kenn solo wu ko ci rahimallahu al من قال بالإسناد المتصل في أول كتاب إليه حدثنا شهاب بن عباد تمام أبو عمرو العبد الكوفي رحمه الله تعالى ممسرين له تي إمام البخاري الإمام مسلم رحمه الله تعالى أما كنا خمن تنا أما كنا نتم كوخم نسرين إمام البخاري له كتب شهاب بن عباد ممتبد واي وا بصر له كوك بصري له رمهم تمر رحمه الله تعالى واي إمام البخاري سلو ولتي مم تي صحيح لي مانم مين سلو تي مم تي ca ca adabul mufrad maanaam foofu rek la soloowee ci moom dégg nga moom mu bokk ci siqaat yi comme ni nga xam ne noonu la ko imam az-Zahabi waxe kaana siqatan sabtan ku wóor la te ku dëgër alxaafis ibn xajar tamit daal di wax ne siqa al imam ibnu adi daal ni kaana min xiyaari naas moom de ci ñu gën ci nit ñi ci ñooñu la bokkoon rahimahullahu taala mu ne qaala xaddathana ibrahim ibnu xumayd te mooy abu ishaq ibrahim ibnu hamad ibnu abdurahman ar-ruasi rahimahullahu taala moom itam di waa kuufa <coughs> an ismail te moom mooy abu abdullah ismail ibnu euh, abi xaalid euh, rahimahullahu taala bi nga xamante ne moom moo solo ci qays maanaam ki nga xam ne moom mooy euh, ki solo kese ci fukki al ashad al mubasharuna bil janna maanaam moom ismail ibn abi khalid al kufi rahimahullahu taala al ahmusi comme niñ ko gisee woon moom mi ngi gane àdduna juróom-benneel fukki at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay xadiis am nekk ci kutubu sitta mu ne an qaysin te moom mooy abu abdullah dañ koy abu ubaydullah قيس ابن أبي حازم ابن عوف آه، الأحمسي الكوفي رحمه الله تعالى تبدي وكوفة موم موي كيغا خامتاني ثقة مانام مخضرم لا مانام موم ريك موم موي كيغا خامتاني موم مو سولو تي فوكي صحابه ييغا خامتاني نيو الاشاد المبشرون بالجنه رضي الله تعالى عنهم من انه قال سمعت دغنا أبو مسعود رضي الله عنه تما أبو مسعود تما أقبة ابن عمرو بن سالبة البدري رضي الله تعالى عنه من آه، من يقول من قال النبي ينتبه صلى الله عليه وسلم وحنا إن الشمس نك جنتبه والقمر أغيري لا ينكسفان دنيوني كل ما تنجير ده وأحد كان من الناس تنيني ما يكون لول دفنك لو خمنا لون ورخملا لا ينكسفان دنيو مورو آه، لما ah du ñu ah, waaw muuru la ah, waaw waaw kay jazakumullahu xayran maanaam inna samsa naka jant bi wal qamara weer wi laa yankasifaani du ñu muuru li maanaam duñu jàpp li mawti ngir deewu ahadin kenn mina naasi ci nit ñi walakinnahuma waaye ñoom ñaar ñii ay aaya lañ ay màndarga lañ min aayatillahi ci kéemtaani buur yàlla yi subhaanahu wa taala kon nag fa iza ra'aytumuhuma su fekkente ni gis ngeen leen leen fa quumu mu leen fa sallu ngeen daal di julli maanaam bu ñu xoolee xadis na abu bakra bi radiallahu taala anhu day dëgëral ne dañuy julli bu ñu jullee ba julli gi jeex bu fekkente ne pareegul maanaam du ñu jugaat di julliwaat yeneeni julli dañuy lan dañuy toog bi ñaan ba keroog muy wuññeeku loolu lay dëgëral Euh, am ma maanaam baat bi nag maanaam xadis bi day daal di tegtale ne maanaam dañuy julli ba keroog muy daal di jeex waaye xadis Seydina Abu bakara bi radiyallahu taala mooy tegtale ne bu jullee tamit maanaam bu ñu noppee tamit maanaam léegi dañuy ñaan te julli googu ndax day gudd ndax dañ ciy tari maanaam bu ñu ko gisee rek dañuy daal di dajaloo daal di asalaatu jaamia julli gi dajaloo na ñu daal di dajaloo ci jumaa ji te loolu nag li nga xamante ne moom la ñuy wax boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne. maanaam ba mu des ah, maanaam maanaam dëppoo nañ ci ne ma lii nga xam ne moom mooy imaam bi kii imaam bi du ci sàtt maanaam imaam bi woote du ci sàtt lu dul ne xanafiyee am dañ ne maanaam jumaa ji maanaam euh, imaamu jumaa ji kooku sàrt la ci maanaam jumaa jañ koy defee ngir ne xet fu ñu koy def mooy ci jumaa wala boog ci place yi ñuy jullee it maanaam foofu la ñuy daje ngir mën a julli yi nga xamante ne moom mooy jant bi bu ñu ko jàppee wala boog bu ñu jàppee weer dégg nga euh, xadis bi euh, imam al buxaari in dina ko indi xadis numéro 1057 dina ko indi xadis numéro 3204 imam muslim dina ko indi xadis numéro 911 ñaari yoon imam al nasaayi dina ko xadis numéro 1462 imam ibn maaja dina gis ne kon waa asxaabu kutubu sitta <coughs> imam al buxaari imam muslim imam al nasaayi imam ibn maaja ñoo ko solo amma imam abu daawud ak imam at tirmisi ñoom indi wuñu ko رحم الله الجميع هنا قال بالإسناد المتصل في الكتاب الذي حدثنا أصبغ أبو عبد الله أصبغ بن الفرج المصري رحمه الله تعالى الإمام مالكي بمك بابو رحمه الله تعالى مولى يحيى بن معين دروحنا موم موي كي غنا خم تي مبول منديف يالا موي كي غنا خم غيس غيسو امام مالك رحمه الله تعالى بوك تي نيغا خامتاني Euh, maanaam man da koo xam masala par masala masala par masala maanaam lépp loo xamante ne ak kañ la ko imaamu Malik am wax ak kan moo wuuteeg imaamu Malik ci wax ji maanaam loolu moom moom moom noonu la xamee waxu imaamu Malik yi rahimahullahu taala gisoon nañ ko maanaam asbax bi rahimahullahu taala di waa misra mun a qaala axbarani ibnu wahb te moom mooy abdullah ibnu wahb al misri moom tamit abu muhammad al fihri rahimahullahu taala di waa misra mun a qaala axbarani amrun te moom mooy abu umaya amr ibn alxaaris ibn yaqub ibn abdullahi al ansaari rahimahullahu taala gane àdduna 92e année génn àdduna 148e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waa misra yi xadiisam nekk ci kutubu sitta an abdurrahman ibn alqasim moom gisoon na muy ibn alqasim ibn muhammad ibn abubakar الصديق رضي الله عن الجميع موي وخمنا نيت بايام لا موي ابو محمد ديوا مدينه المنوره على ساكن افضل الصلاه والسلام عن ابي قال انه من حد انه قال حدثه أبي عن أبي من عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه مموه نتر عن أبيه جلك وتبايم ثم مموه كن فقهاء السبع القاسم بن محمد بن أبو بكر عن ابن عمر مجلس سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه نكم من كان نكنا يخبر دي خبار عن النبي دي جل جنتبي صلى الله عليه وسلم من إن الشمس لك جنتبي والقمر أقويري لا يخسفاني du ñu muuru maanaam nga gis ne foofu xasaf la jëfandikoo comme ni ko alquran jëfandikoo xusuuful xamare ak xusuufu shamsi maanaam ngir wax ne baat yooyu yëpp benn lañ imaam al-Buxaari daal moom ñoom du ñu wuññeeku lim maanaam mu Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu taala maa ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax na lii nee na du ñu wuññe duñu du ñu muuru bokk li mawti ngir génn àdduna ak ahadin kenn wala li xayaati yi du caagin dundam maanaam du ne diw moo dund wala diw moo juddu wala diw moo dee loolu moom moo tax maanaam jant beeg weer wi dañ leen di jàpp loolu amul loolu kon nag maanaam mu nekk loo xamante ne loo mat a bàyyi xel la yi ci des yëpp ay coow la rek maanaam bis bu nit génn àdduna ku ne am na keneen ku génn àdduna moom rek génnut àdduna maanaam nga askane la ko kenn nag bàyyi ña ca des loolu moom bokkul ci li nga xamante ne mooy li eh, xellu. yàlla nañu yàlla sàmm mu ne walaakinnahuma waaye ñoom ah, mooy comme li ñu doon wax rek ci ñaan yi nga gis nit koo xam te ne dana wër ci téeméeri nit mu ñaanu leen maa man am examen ñaanal ma waaye bu sottee kenn rek lay tànn ne seen diw moo ma ñaanaloon maanaam tet maanaam ñëw ñi nga wax ñu ñaanal la lépp da ngaa xam ban la ci yàlla nangu yàlla nañu yàlla sàmm mu ñoom ñaar ñii aayataani ñaari aaya la maam ñaari kéemtaan la mandarga la min ayatullah ci mandarga yi buur yàlla yi subhaanahu wa taala maanaam yuy tegtale ne maanaam yoo xamante ne day tegtale màggaayu borom bi subhaanahu wa taala waaye tamit dafay tegtale ne war ngaa delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala teyit ne borom bëgg na ci yow nga julli ci maanaam comme par exemple tey bu jant bi soowee maanaam li muy tekki mooy mandarga la bu borom bi subhaanahu wa teg si diggante ak moom ngir ne la war ngaa dem julli ji timis manam naka nono tamit bu fajar gi xare muy ga guy tekkale ne war nga dem julli ji ñaari rakkay fajar yi ak ñaari rakkay suba yi loolu maanaam nii wala bu jant bi demee ba jeng manam bu jenge muy ga buy wane ne war nga dem julli ji tisba lolu moy ni mandar ga rek borom subhanahu wa taala tek ci diggante ak mom ne la jaamu yalla bi bëgg na nga def ko sama diggante ak yow lolu lay tek ci mu ne kon fa iza raaytumuuhaa so len ko gisee rek fa sallu na ngeen julli gis nañoo te xadis sayyidina Abu Bakra bi radiyallahu anhu te moom mooy lan ngeen teg ñaan ba keroog muy daal di wuññeeku xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab bi radiyallahu taala anhuma imam al Bukhari dina ko indiwaat xadis numéro 3201 Muslim indi na ko xadis numéro 914 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 1461 imam Ahmad ibn Hanbal indi kon ñu gis ne ci wàqu asxaabu kutubu sitta imam al buxaari ak imam muslim ak imam annasaayi ñoom ñoo ko indi amma imam abu daawud ak imam tirmisi ak imam ibnu maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu aljamii na qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab lay xaddasana abdullahi ibnu muhammad te moom mooy abu jaafar al musnidi rahimahullah taala di sëriñ imam al buxaari boobu bu mu wéetoo mu ne qaala هاشم بن القاسم تمام لن يوقع قيصر مم لن يكون داقا تل جسونك أبو النضر مانا هاشم بن القاسم من المسلم من مقسم الليثي رحمه الله تعالى دي وبغداد جنا ونك ما وخراسان Euh, Kinaani yu asla la rahimahullah taala mu génn àdduna deux cent cinquième année gane àdduna cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala xaddasana Shaybaan te moom mooy Abu Muawiya mooy Shaybaan Abu Muawiya te moom mooy an-Naxwi rahimahullah taala muy al-mu'addib di waa Kuufa nga xam ne daan yar doomu buur yi muy Shaybaan ibn Abdurrahman at-Tamimi rahimahullah taala mu ne an ziyad ibn ilaaqa te moom mooy abu malik as-saalabi rahimahullah taala gane àdduna vingt cinquième année génn àdduna cent vingt cinquième année maanaam ñu gis ne téeméeri at la dund rahimahullahu taala an al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu taala anhu saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu di waa Kuufa moom itam rahimahullahu taala mu ne qaala moom mu ne kasafat mu jàppoon nañ ashamsu jant bi maanaam jant bi muuru na ala ahdi rasulillahi ala ahdi ci jamonoy rasulillahi ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam yow ma bis bi nga xamante ne maata ci la génne àdduna ibrahim muy doomam bi nga xamante ne saydatu maria alqibtiya uh, radiallahu anha moo ko ko juraloon maanaam moom muy saydna ibrahim alayhi salaam fa qaala mu daal di wax annaasu nit ñi kasafat maanaam jàpp nañu muuru na ash-shams jant bi li mawti ngir génn àdduna ko ibrahima ma seydina ibrahima boobu alayhi salaam fa qaala mu daal di wax rasulullahi ndawal yàlla de sallallahu alayhi wa inna shamsa naka wéer ni wéer bu woon moom mooy jant bi wal qamara ak weer wi laa yankasifaani duñu muuru li mawti ngir génn àdduna ak ahadin kenn wala li xayaatihi du caagin ngir dundam fa iza raaytum soo maanaam loolu fa sallu na ngeen julli waddullaha te na ngeen ñaan yàlla maanaam nga gis ne bunt bi nga xamante ne maanaam bunt bi ni mu ko ubbee moom mooy fa ay ra'aytum fa sallu waddullaha muy xadis sayyidina Abu Bakra bi ñu ngi ko tëjee xadis sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne dafay teg tegtale tamit ne dañuy julli bu ñu paree ñu ñaan maanaam bu boobaa dañuy daal di dem ñu julli suñu jullee ba noppi te wuññeekuwul bu boobaa ñu daal di ñaan li nga xam ne tamit lay dëgëral mooy bu Shaafi'i yi ak Hanaabila yi rahmatullah alayhim ne dañ koy julli ci jumaa yi wala dañ koy julli tamit ci place yi nga xam ne moom la ñu mën a jullee it nit ñuy jullee li nga xamante ne moom mooy salaatul eh, eh, eh, maanaam kusuuf naka noonu noonu la ñu jullee salaatul xusuuf loolu mooy li gën a wér insha allahu taala والله اعلم حديث بامام البخاري دونك اندي حديث نمبر 1060 امام مسلم دونك اندي حديث نمبر 915 امام احمد بن حنبل دونك حديث نمبر 18142 اك 18178 اك 18218 داي غيس ني كون نيغا خامل نيوم نيي بوروم صحيح نيوم نيو سولو حديث بي نيو البخاري امام مسلم اما اصحاب السنن تي مام موي امام ابو داوود امام الترمذي امام النسائي امام ماجه نيوم اندي ونيو الله على الجميع mu ne baabu sadaqati fil kusuuf maanaam bunt bii dafay leeral ne baabu bunt la sadaqati sarax fil kusuuf yi ci maanaam bu ñu jàppee jant bi loolu tamit dafa am beneen mbir boo xamante ne dafa maanaam day tegtale lenn ci teggin yi nga xamante ne moom la ñu amee su fekkente ne dañoo jàpp jant bi laataa ñuy jóg dem di julli ji muy ne dañoo sopp ñu nit ki saraxe laataa muy dem di julli ji naka noonu mu daal di sangu li nga xam ne moom mooy càngaayal farata ngir ne julli gi jullit mbooloo la comme ni nga xamante ne noonu lay sangoo cangaayal farata su waree dem juma naka noonu su waree dem jullit eet noonu lay sangoo cangaayal farata naka noonu ci salaatul istisqa naka noonu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom la ñu sopp moom mooy mu sol ay yére yoo xamante ne yu rafet la maanaam naka noonu maanaam ngir maanaam mu ak yeneen i tegg ñi nga xam ne ñoom ñoo ci aju mu bëri tamit lu mu jéggalu yàlla maanaam muy def astaghfirullah astaghfirullah loolu moom moo tax ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne bu jant bi wuññeekoo maanaam maanaam bu ñu demee ba nga xamante ne masalan euh, heure yi nga xam ne dañuy tereku naafi la maanaam li nga xam ne moom lay remplacer julli gi moom mooy day def ay ay sax sàbbal ak tahlil ak ay istighfar maam noonu la ñuy remplacer ay subhanallah ak alhamdulillah la ilaha illallah ak astaghfirullah maanaam yooyu la ñuy remplacer julli gi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko indee ci wuute yi borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim su dee waxtu yi waxtu wu ñu tere la maanaam ku ci naafi la comme ni nga xamante ne noonu la ko jumhur waxe wuute fuqaha ak ñenn ñi dëppoo ak ñoom rahmatullah alayhim ci maaliki ak xanaabila yi rahimallahu ljamia maanaam kon teggin yooyu moom la imam al buxaari yi am yoo xamante ne dëggu ci indi ngir leeral ne noonu maanaam saraxe googu dafa nekk loo xamante ne lu ñu yoonal la ci jullé nga maam ci loolu nga xamantene mom moy buñu jappé ñu bi muna qala bi rasna lil muttasif fi awwalil kitaabi li haddathana abdullah ibn maslama te moom mooy ibn bal al bi an malik te imam imaamu hijra an hisham ibn urwa urwata mom ibn zubair ibn al awwam an abi mu jële ko ci bayam mo se baayam مسلم عروة بن زبير بن العوام عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت خسفت جبنا الشمس جنتبي في عهد في جمن رسول الله sallallahu alayhi wa sallam fa salla mu daal di julli moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi bi sallam binnaasi ci nit ñi fa qaama mu daal di taxaw fa ataala mu daal di guddal alqiyaama taxaw bi summa topp rakaa daal di rukoo fa ataala mu daal di guddal al rukoo rukoo mu daal di taxaw fa mu daal di guddal alqiyaama qiyaam taxaw bi woogu wate loolu nag duunal qiyaam moom mooy gën a néew ak taxaw ak alaw alaw wal gu njëkk gi <coughs> maanaam li nga xamante ne summa topp nag raka mu daal di rukoo fa ataala mu daal di guddal ar rukoo ar rukoo maanaam rukoo bi wa huwa te loolu tamit duuna rukoo yi moo gën a néewu rukoo al awwalu bu njëkk gi summa topp sajada mu daal di sujjoot fa ataala mu daal di guddal as sujjoot sujjoot bi summa topp faala mu daal di def fir rakaati ci raka saaniyati ñaareel gi mislama kéem li nga xam ne ma faala def na ko fi uulaa ci njëkk gi maanaam lii moom mooy ni nga xam ne noonu la ñuy jullee bu ñu jàppee jant bi maanaam imam bi day daal di ñëw taxaw te li nga xamante ne moom lañ ci sopp moom mooy mu tari sóoratul baqara wala bokk lu tolloog aay nekk ci sóoratul baqara maanaam guddaayu sóoratul baqara loolu moom mooy taxawaay bu njëkk bi ñaareel bi ci des moom mooy bu rukooree maanaam mu toox taxaw maam ci rukoo bi lu war a tolloog téeméeri aay ci xanaa bi lay rahmatullah alayhi wala boog mu tolloog lu lu maanaam mu gudd lool waaye mu daal di jógaat daal di taxawaat kàmbaraat taxaw bu boobaa day daal di tariwaat maanaam fatiha daal di tari ali imran surtout ali imran wala boog ay nombre aaya yu tolloog loolu mu daal di rukkoo maanaam bu defee noonu mu daal di jugaat sami allahu liman hamida daal di dellu si li nga xamante ne moom mooy euh, sujjóot maanaam sujjóot googu tamit mu guddal ko mu xaw a tolloog rukkoo yi nga xamante ne moom la defoon maanaam daal di mais mais rukoo bi nga xam ne mooy ñaareelu rukoo bi moom mooy gën a néew li nga xamante ne moom mooy rukoo bu njëkk bi su ko defee mu daal di jug maanaam def sujjóot ñaari sujjóot maanaam mooy comme ni ñuy jullee noonu rek su paree mu daal di jugaat bu kàbbaraatee daal di tari faatiha daal di tari sóoratu nisaa yi wala boog saar yu war a maanaam lu tolloog noonu ci ay aaya maanaam daal di daal di rukkoo maanaam rukkoo bu yàgg tuuti maanaam daal di sujj maanaam comme maanaam lu tolloo proportionnellement ak noonu rek maanaam daal di jógaat daal di tari ginnaaw faatixa sóoratul maida wala boog saar bu xaw a jegewantoo ak moom maanaam doog a rukkoowaat maanaam bu boobaa bu daal defar noonu su jugee maanaam day daal di dellu daal di sujjoot maanaam noonu lay def ba daal di pare julli ji maanaam loolu moom mooy maanaam sujjoot bi après su sujjootee sujjoot gi day yàgg mu daal di toogaat daal di sujjootaat daal di toogaat taaya sëlmal maanaam loolu moom mooy kon julli nga xamante ne moom la ñuy da julli bu ñuy jàppee jant bi te mooy jëmmi julli ci xanafi ci saafee yi ak xanaabi lay rahmatullahi bu ñu jàppee weer wi amma fuqaha u xanafiye yi rahmatullahi alayhim comme ni xadiis sayyidna Abu Bakr bi wax radiyallahu taala anhu ñoom dañoo jàpp ne ñaari rakka rek la comme yeneen ñaari rakka yi donte daan ci guddal mu am beneen mbir boo xamante ne tamit borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ko fii moom mooy yan ñoom maanaam euh, yeneen ñi ci des maanaam mooy fuqaha u maliki ak shafii ak xanaabila rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci ne bu ñu jullee ñaari rakka comme ni xanafiya yi wax dana baax ñoom dëppoo nañ ci. sauf que dañ ñi bu boobaa ñaari rakkaay ci saafee yi ak xanaa bi lay rahmatullah alayhi maanaam ñaari taxawaay yu njëkk yi ñoom ñaar ñoom ak rukoo bu njëkk bi maanaam ñaari taxawaay yu njëkk yi ak ñaari rukoo yu njëkk yi yooyu ñoom ñooy farata ci julli yi maanaam yeneen ñaari beneen ñaari taxawaay yi ak yeneen ñaari rukoo yu mujj yi yooyu duñu farata maanaam dañ leen a sopp bu boba waye fuqaha maaliki rahmatullah bi dañu ñëw jàpp ne déedéet ñaari taxawaay yu mujj yi maanaam ñaari tari yu mujj yi ak ñaari ruku yu mujj yi yooyu ñoom ñooy farata yi ñaari taxaw yu njëkk yi ak ñaari taxaw yu mujj yi ñoom ñooy sunna yi manam lool mo moo wutale borom xam-xam yi rahmatullah alayhim amma ñi nga xam ne ñom ñoy xanafi ñom dañu jàpp ne ñaar rakka rek la def wallahu a'lam amma fu fekke salatul khusuf ñom fuqaha o maliki ñok xanaa xanafiya yi ñoo nuroo ni ñuy wax maanaam dañuy jul waaw ba noppi ñoom nekkut ni dañ maanaam da jullee ko ci jum jàkk ni loolu maanaam man duuba rek lañ ko yóbbu maanaam yégg lañ ko yéggalewuñ ko ci sunnatun mu akkada wallahu alam mu ne su man sarafa topp mu daal di nopp géet ba pare mu ne waqat fekk nag in jalat maanaam wuññeeku naa asham su jant bi فخطب مداد خطبه الناس نني فحمد الله مسنت الله واسنا عليه مداد كوي باك كانكو لي تاميت دي دغرل ني مانام ني خطبه دا فا نيك لو خامتاني لو تي ام لا مانام تي جولي خسوف بي اك كسوف بي ووتيك ليغا خامتاني موم لا حنفيه اك مالكي يي واخ رحم اك اك اك اك شافعي مانام آه، آه، دد مالكي يي اك حنا اك اك مام حنفيه اك مالكي اك حنابلي بوك رحمه الله نيوم دانيو ني خطبه دي اموتي am maanaam liñ ci yoona rek mooy ñaan gi comme ni mu ñëwee ci xadis Seydina euh, Mughira ibn Shu'ba bi ak Seydina Abu Bakra bi radiyallahu taala anhu maanaam ñaan gi rek moo ci am maanaam julli gi bu ñu paree dañuy ñaan am amma li nga xamante ne nag moom la Shaafi'i wax rahmatullah alayhim te mooy li gën a dëgër insha allah mooy lu xutba gi da ci am comme nii nga xamante ne noonu la ko sayyidat Aïcha waxee radiyallahu taala anha nee na fa xataba dafa xutba te bokk na ci ni mu daan xutba waaye comme niñ ko xamee moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallama moom mooy dafay wax ne fa xamidallah dafay sant yàlla was na alayhi mu bàkk ko kañ summa topp qaala mu ne inna shamsa naka jant bi wal qamar ak weer wi aayataani ñaari kéemtaan mandargay buur yàlla lañ min aayatillahi ci mandargay buur yàlla yi laa yan xasifaani duñu muuru li mawti ngir génn àdduna ahadin ken wala li xayaat yi du caagen ni ngir dundam fa iza raaytum soo leen gisee zalika lool fad'u llaha na ngeen ñaan yàlla na ngeen ñaan buur yàlla wa kabbiru te na ngeen kabbar wa sallu te na ngeen julli wa tasaddaqu te na ngeen saraxe kon nga gis ne kon loolu xutba la maanaam mooy wax na digal ne na wax na sant na ba digle maanaam te li tax imam al-Bukhari indi ko fi nag rahimahullahu taalaa mooy wane ne maanaam saraxe dafa bokk ci li nga xamante ne moom la ñu yoonal ci bu ñu jàppee jant bi naka noonu te tamit ñu jàppee weer wi summa qaala topp maanaam ngir ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne jant bi ak weer wi su leen lii dalee maanaam su ñu amee suñ leen muuree bu boobaa na ngeen julli na ngeen def lii na ngeen saraxe na ngeen ñaan maanaam mooy wane ni kon saraxe gi ak yooyu yëpp bu ñu jàppee jant bi bu ñu jàppee weer wi ñoo ci yem summa topp xaal te bokk na ci li koy gën a tegtale mooy ne jëmmi baat bi ñuy jëfandikoo ci jàpp jante bi mooy jëmmi baat bi ñuy jëfandikoo ci bu ñu jàppee weer ak maanaam vice versa summa ko xaala mu ne yaa ummata muhammad ey eh yéen xeet yéen yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallahi waat naa ci yàlla ne maa min ahadin amul kenn maa amul min ahadin ci kenn ax yaru koo xam ne gën naa fiir min ci buur yàlla an yasniya ci muy njaaloo abduhu jaamam aw tasni wala boog muy ja njaaloo u amatuhu jaamam bu jigéen maanaam kenn gënul fiir yàlla ci bañ gi muy bañ njaaloo di am bu tukkee ci jaamam bu góor wala ci jaamam bu jigéen yaa ummata muhammad ey yéen xeetu yéen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallahi waat naa ci yàlla de law a soo leen xamoon maa aalamu li ma xam la taxit tum giñ naa ne da ngeen di ree xalilan lu néew wala bakaytum te giñ naa da ngeen di jooy kasiran lu bari maanaam loolu yëpp day tegtalee maanaam xam-xam bu mag bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amee te euh, mu nekk xam-xam boo xamante ne keneen ci xeetam bi amu ko loolu moom moo tax euh, mu moom mu ne moom ànd ak ne moom xam na ko te mu ngi ne tekk maanaam di dund ak nit ñi dund ko normal maanaam mais keneen ku dul moom ci xeet bi ku ko ci xamoon ku ne maanaam fi mu toll dootul mën a dundati dund ko normal foo ko fekk day jooy maanaam te lu néew lay ree maanaam loolu tamit beneen mbir la buy wane màggaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñooy ulumu nubuwa maanaam xam-xam yi nga xam ne ci nubuwa gi la aju ci boppam maanaam moom yenente bi sallallahu alayhi wa da ko dul jox keneen maanaam du ne bugg ko jàngal ñeneen ñi mais yërmandeeg yàlla moo aju ci ne maanaam askanontewul maanaam dafa euh, euh, askanontewul ci keneen war koo mën a xam ku bokkut ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom moo tax moom rek moo koy xam digganteem la ak boroomam subhaanahu uh, wa taala uh, kon uh, xadis bi imaamu al buxaari indi xadis numéro 1046 1047 1058 1212 3203 5221 ak 6631 imam muslim dina ko indi ñetti yoon xadis numéro 901 moom Abu Daawud xadis numéro 1177 ak 1191 imam An-Nasaa'i nag xadis numéro 1470 1472 1474 1497 ak 1500 imam Ibnu Maaja nag xadis numéro 1263 imaamu Maalik bi nga xam ne ci moom lañ solowee xadis bi indi na ko xadis numéro 507 imam Ahmad ibn Hanbal na ko xadis numéro 24 473 24 571 25 312 ak 25 351 dañ gis ne kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam At-Tirmidhi rahim